journaliste d'investigation bii di Pape Alé Niang nekkit njiitub Dakar Matin moom la ñu tabb ci RTS mu dal di wuutu Racine Talla mi nga xam ne moo nekkoon ci boobule poste ay at yu baree bari syndicat bu RTS bi nag rafetlu nañu boobule tabbin li muy xaar ci moom mu dal di wëyal liggéey bi. dernièrement suñu nañu accord d'entreprise boo xam ne ci yokku prime yi responsabilité fonction ba ci salaire yi mission yi yooyu yëpp am na fi yéen gis tour bi fi fi ñu taxaw nii mooy war a nekk crèche bi nga xam ne fi du yàgg buñ ko ubbee ndax si tour bi la la la bokk. mu yeggale liggéey bi parce que mission la moom aussi dañ koy jox mission fi nga xam ne Racine Talla yemoon na fa bu ñëwee mu xool. li nga xam ne aussi war na ko mën a yeggale ak ndimbalu agent yi parce que moom rek mu mënul dem. secretaire général bu syndicat national bi ëmb ñi seen xel màcc ci wàllu télé moom gëm na ni DG bu yees bi dina réussir mission wam muy fexe ba RTS dellu ci rôle premier bi ko taxoon a jóg muy def service public. li am solo mooy le journaliste en tant que tel journaliste bi moom professionnel la journaliste bi moom génn na fa war a génne xam na lu war ak lu waral ci wàllu éthique ak déontologie. moom bu ko bëggee doxal rek dina ko dina ko doxal. mu xarañ lool ci métier journalisme moom Pape Alé Niang jàppale na bu baax a baax kii di opposon bii di Ousmane Sonko ci xeex bi mu doon xeex ñu daal di koy teg loxo ñaari yoon laataa ñu ko bàyyi ginnaaw bi mu amalee ay grève de la faim yu baree bari ngir ñaawlu teg gi ñu ko teg loxo.